yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy xaaj baaraam tey mi nga xam ne ci biir activité ba muy joxe sa solo yu mat a 40 ans alaji baara ji ñu xam ne li bi bi qarib hal siqami tasma'u يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله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 rab ji ñu ci dalam ak téyam tabaraka moom yàlla yàlla fay ñu ko alaaji Seydi semre semre jamaa li maam kon yaakaar na fi ya حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق أماني كما توقعوا محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بالسنوي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره Sëñ bi ne maam Diarra Fapal la ñuy jox rek suñu xarit suñu sopp daa di jël kàddu na حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع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 أني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم فارغ يتشفع لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñoo ngi nuyu yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru waaw ndax nit génnaat dina ñu taxawu la nit génnaat dinañu ñaanal la da ngay yëg ni ki dem fa mu tëdd xel dal na ci moom ndax fii boo ñëwee ku ne di ko fi gis te ku ne ñaan na ñaan yooyu nag am na ci yoo xam ne yàlla du ko delloo kon yàlla yàlla yeesal yërmandeem yàlla kaweel aljanaam ci darajey Seydina Muhammad di masaw ñëpp macha allah am na ñu macha allah ci mooy nit ku baax la peut-être soo deewee la ko mais baax moom dama lay wax nala doomu con sekk bi doomu con sekk bi ah yal na ko yàlla yërëm te yeexeñ man daal xam naa ne daal ñàkk naa nit ku baax man waaw ah. ah, man musul man musul jaar sama tur madame rek lay wax madame rek madame rek loo ko wax rek mu ne waa madame waa madam kon moom it dama ko ñaanal rek man aw ma lu ma wax damay ñaanal moom rek man ñaan rek laa mën di sant yàlla bu baax a baax. waaw. waa kër Papa Thione am nañu iman xam naa ne waa kër Papa Thione am nañu iman lool. xoolee wu ci li nga xam ne mooy réseaux kenn xamu ko moom mi mi nit ñi am sax maa ko génnee bi mu man maa ko génnee dañ mhm. mhm. bëgg gis sax kan moom moom mi kenn xamu ko ñu bari xamuñu ko mhm. sori woon na ci yow torop ndax boo xoolee buñ jëlee photo yi ci yow kon cela veut diir que am nga fu ngeen fu ngeen fu ngeen ay sori na kay moom mi sori na de moom mi sama diggante moom mënu maa wax su may wax ay moom mi nii sax nit ñi di ko loolu lool waaye mu yóbbaale lu bari nag xam naa ni man moom yóbbaale na lu ma ko dénk barke ci yàlla moom moom sekk yóbbaale na man lu ma moom la fi moom la fi bàyyi mu yóbbu moom yi mooy teg loxoom ci doomam yi di ko jaale ñëpp nag di ko jaale àdduna bi yëpp ñëpp nag waaw seen waa kër yépp njabootu Papa Thione am ñu imaan man loolu xam naa imaan nag si nit lay ne waaw c'est normal moom it li mu liggéeyal bugaan loolu rek la mun a am moom it télé bi moom it moo ko téye woon ci loxoom barke yonent ci yàlla moomul dafa demoon jàngiwaat keroog bi may wax dafa feebar mais du ma wax du wax man moom fi ma toll ci moom ruus naa toog ci télé bi ñëpp di ma xool may leen moom dafa dem France dafa dem faju dafa feebar déedéet du ma wax yooyu yal na ko yàlla yërëm daal moom it yal ko yàlla yërëm sedd na ba dee am na personnalité ba dee nit ku nit ku dëggu la woon ba dee moom it daal li ma mën a wax si moom it daal man daal xam naa ni ah ñàkk naa xarit bu baax ku ma yërëm lool.